il faut que dem taxaw ci suñu weti jeunesse parce que combat bi di ñëw combat wu jeunesse la soixante dix pour cent wax naa ci fichier bi ne euh, ay xale lañ am na ñu sous-estimé nag xelu xale yi foog ne mën nañ leen manipuler ba 24 février ñi def erreur boo xam ne balañ ko mën a rectifier cinq ans dañu passé euh, comme ñu am nañ jeune majorité bi am nañ ay jeune nañ wax ak ñoom pour combat jeune jeune ak majorité minorité walla meilleur candidat ak les candidats euh, xaw ma nuñ fu ñu leen jëlee sax eh, kenn xeebu leen mais nag phase bi Sénégal jëm muy réew buy aju ci pétrole aju ci industrie aju ci gaz aju ci jaay or ak jama booy xool profilu cinq candidats yi président Macky moo ko ci gën parce que ingénieur la de formation ñele kenn amewul ci métier boobu xamuñ li xew donc euh, ñu jox ko réew mi mu transformer ko émergence bi continuer keneen kuy ñëw nag yokku ci parce que am na loo xam ne bu ko fi xasee def keneen ku ñëw mënatoo ci dellu duñ dem ba nekk réew industrie amee ay usine di jaay pétrole di jaay gaz di ex di génne or di génne zircon Kaolack gi am na ci quantité zircon boo xam ne mën naa dimbale Sénégal ci côté pétrole ak gaz buñ demee ba àgg foofu keneen ku jëlati Sénégal mënatoo dellusiwaat ci agriculture ak pêche parce que lële rek nga mën a continuer donc euh, kon moo ci gën profil moo ci gën vision doon naa wax ak sama benn mbokki député jamono bi Thierno Alassane Sall génne gouvernement bi ma ne ko kii nit ku baax la sax parce que xam nañ ko moom maa koy àndoon ñu créé APR mais dañoo utee ci gis-gis moom bi ne dinañ jox France mu seet. pétrole ci benn zone moom looloo ko merloo mu génn donc seen gis-gis ñoom ñaar lan la France moo ñuy coloniser ñaar téeméeri at yu teg mais France mos tax xalaat ne Sénégal dana am pétrole am gaz am yenn yi daf foogoon ne rek ci pêche agriculture yalwaan sàmm ci la ñuy yem mais xëy Sénégal war a génne pétrole war a génne gaz war a génne nangam France il faut mu ñëw laaj wàll. keroog bi France ñëwee ne nañ ko jox mu xool zone bu mu war a explorer su fekkoon président Macky bañ France mooy ubbi Mali gi rebelle yi Mali yi dugg mooy réarmé at Ziguinchor Casamance jox leen arme dana créer yeneen problème ci biir Sénégal yoo xam ne ñun taluñ di jaay pétrole di jënd arme di xeex amul benn njëriñ boo gisee gaz bi aussi vision bi ci président am na nañ créer société mixte entre Mauritanie ak euh, Sénégal parce que gaz bi feeñ foofu tubaab bi ko doon seet nañ bu dee ñay la quantité bi kii bi rek mooy moo nekk ci biir Mauritanie bakkan bi donc li ci des yëpp mu ngi ci biir Sénégal mais président nee na comme xaj nañ ci société bi ko doon exploité nee na gaz bi mën na servir Afrique servir Europe président nee nañ ko boole Sénégal ak Mauritanie ñi def ko benn société expo loolu moo ëpp jàmm que ñun ñaar ñëpp ñuy xeex di jënd arme ki ci bénéficié wu mooy rek tubaab bi ma vision boobu la président am te Thierno Alassane amu ko jaay pétrole France joxuñ ko pétrole bi ñële gisoon dañ ko jox benn place ne ko demal xool ba léegi dégg gu ma ne France gis na ay puits pétrole ci booru jam ñaaju mais bu buñ ko ko joxutoon moom ci boppam mooy taal réew mi te amaloon ñu benn njëriñ Euh, yooyu dafa jar euh, xale yi xam ko yàlla may na ko vision may na ko xam-xam may na ko it équipe boo xam ne mën nañ ko jàppale ci développer réew euh, appel bi ñuy ñaan xale yi nga xam ne jotoon nañ këf seen xel yi ne leen il faut ñu def attention parce que seen avenir le président di taxawal